mbokki Sénégal jigéen ñi bëgg lu baax bëgg style bëgg mode laa bëgg a waxal yéen ñi bëgg fu ngeen defaroo ba génn ñu validé daw leen gaaw seeti fas yéen Baye Collé Laye gérante ba di wóyoo ci turu Collé Laye madame bay nekkee ci VDN côté supermarché exclusif di yëngu ci lépp luy taaral jigéen ma ne mbokk yi produit greffage yi yéen a ko doon laaj cheveux naturel yu baax yu gudd yi yéen a ko doon laaj dama ne seen njàqare jeex na ndax Collé Laye da leen di defal leen kenn mënta defal bu ngeen bëggee escurely placage greffage wala ngeen seen i greffage bu

clôture nag mbokk yi moo ci teg loxo di ngeen fa fekk ay trois di ngeen fa fekk ay kim ak ay frontal lépp ngir dab seen bànneex longooru greffage yeeg périg yi nag mbokk yi am na ci li ko dalee ci 10 ba ci 42 bu dee da di bañ ku leen nax nag ci greffage ak ci périg ci mbooleem produit yi ñuy def ci greffage saa yu ngeen demee ci moom mën na leen a li gën ci yéen elle disponible ngeen mën ko woo ak Kolle laay madame Mbaye ku fi ñaaw Serigne nag fas yéen bàyyi ko lelaay ku ko seet si seet si seraax la nuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Gaston Mbengue ki mbiram ak combat mu taxawal ak na ko nar a modifié journal ba dafa xëy fësal Gaston Mbengue ak i plan gannaaw Gris génn na ci làng gi moom Gaston Mbengue am na yeneen i plan plan yi sunu làmb jàpp ne moom la Gaston Mbengue di def bokk na ca tas combat ba doon dox ci diggante Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux tas combat ba doon dox ci diggante Eumeu Sène ak Bombardier mu daal di jël Eumeu Sène jox ko Lac de Guiers 2 jël Bombardier jox ko la sunu jàpp ne noonee la nar a doxale ay combat gannaaw combat mu taxawaloon mooy diggante Eumeu Sène ak Bombardier taxawal diggante Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux bàyyi Lac de ci tuus yi bu dee Gris day lappi-lappi day jëli Lac de ma nekkoon ca tuus ya boole kook Eumeu Sène foofee day nekk revanche bu neex revanche bu neex Lac de Guiers 2 mu jëliwaat Bombardier ñëw jox ko Balla Gaye 2 mu nekk ak bu neex ku jàpp ne Gaston Mbengue amuti pexe dangaa yërut walisam ba ni mu yoree valise su tontu noonee la yoree valise su plan ab valise la jël duy ko ay plan ba mu fees del plan bu mu yëkkati ay plan ab farceur la lii muy wax gëmu ci dara xamu ko leer na ma ne interview ba mu doon def sax def na ko waaye xamul lu tax mu def ko dafa jàpp ne rek ni muy tooñanteeg man noonu la war a tooñanteeg man ci média yi ndax saa yu ma gisee daf may tooñ di ma takki ne naan ma peer yoratoo dara xaalis bi nga yoroon yépp jënd nga ko ay terrain toog bu dee yor nga dara won ma ko ma xool man damaa jàpp ne Gris Bordeaux ci lancé boobu la nekk ba nu ko laajee ba xam ndax ultimatum bi nga mayoon Gris Bordeaux ngir mu delloo si xaalis bi Gris ñëw na delloo si xaalis bi moom père Gaston mu ne gisuma Gris a gën ne yorul lu mu fayee ko doon puus di ko ruux bi dellool xaalis bi leen gis dee ñoom la yaakaar nañu ko jox 10 yu mu faye ba jamono ji may wax ak yéen Gris Bordeaux yorul dërëm ka yor ay secrém téye ko mooy la ministre bi yor ay mbiram te ci suuf la koy def ñi jàpp ne Alioune Sarr jóge sax kan moo leen wax ne Alioune dina fi jóge moom la ministre mi yore sport bi mooy xool na ko neex mu doxalee ko noonu li olof di wax naan paaka kenn du ko jiitu ci mbaram fii lay leere moom Matar Ba fa mu jëm ak Alioune kenn gisagu inspecteur dem retraite moom indi na ci xalaatam ana moo war a remplacer Alioune bu fi jógee moom mu joxe ñaari nit Maysa Ndiaye président CRG bu Thiès ak Bira Sène président CRG bu Kaolack ñaar ñooñu kuñ ko jox mën na koo yor boo xoolee CRG Kaolack ak CRG Thiès ni muy doxee nga gis seen làmb ni mu avancé nga xam ne ñaari tët yi mën nañoo yore CNG bi Maysa Ndiaye CRG bu Thiès da ko réglé ba mu ne coccu teg ko ci yoon Bira défaite ak benn match nul ku wax écurie jëf soog a nekk wax Paul bu daaru wax Valérie wax Orton seen bile saison Lac moo daan Sonacos bu Diourbel xayta daan Boy Niang 2 bu yëmbal Gosé daan Ndiaga Or bu Malika Mbooloo Valérie daan Zarko 2 bu yëmbal Maré Boy Melax daan Thiaw bu Ngoy bu Aselem Taawu Anta daan Caatu bu Kajoor bu écurie bu laal Orton daan Maam Góor gi Siñoor bu yëmbal Maré Boy Melax daan Aliou Diouf Cargo bu Badajon Gosé daan Seex 2 bu Mor moo daan xayta seen match nul ba Paul bu daaroog bébé ama bu Pikine mbooloo ñoo match nul bu dee seen président ba Modou Fall la mu xamle mooy du bilan bu baax la bëggoon mooy def parcours zéro faute ñun li ñuy viser mooy sunu lambu bi ñaar fukki mbër juróom lañu am 15 yi ñoo am combat 10 yi ñoo des bëriwuñu moo tax ma ne bilan bi baaxul jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ci tu bi ñu leen jox di daje ba ëllëg mbokki Sénégal jigéen ñi bëgg lu baax bëgg style bëgg mode laa bëgg a waxal yéen ñi bëgg fu ngeen defaroo ba génn ñu validé daw leen gaaw seeti fas yéen bay Collé Laye ba di wóyoo ci turu Collé Laye madame bay nekkee ci VDN côté supermarché exclusif di yëngu ci lépp luy taaral jigéen ma ne mbokk yi produit greffage yi yéen ko doon laaj cheveux naturel yu baax yu gudd yi yéen ko doon laaj dama ne seen njàqare jeex na ndax Collé Laye la leen di defal leen kenn mënta defal bu ngeen bëggee escurely placage greffage wala ngeen bëgg sérum yi nuy traité seen i greffage ba mu rafet muy sérum red wala ngeen bëgg ay steam pot defar seen greffage bu ngeen yegsee ci fas yéen bàyyi ko seen xol set bu dee yéen yor seen greffage bopp bëgg koy steam daw si leen gaaw da koy defal ci njëg yu xéewal te bu ko jàppee ba bàyyi ko ngeen jàpp lu bees la bu dee da ngeen bëgg greffage nag xeet bu mën di lekk greffage red frisé ba ci semi ondulé original bi ngeen fii fekk ngeen bëgg ay accessoire ngir defar seen i peñe yaa clôture nag mbokk yi moo ci teg loxo di fa fekk ay trois di fa fekk ay kim ak ay frontal lépp ngir dab seen bànneex longooru greffage yeeg périg yi nag mbokk yi am na ci li ko dalee ci 10 ba ci bu dee da di bañ ku leen nax nag ci greffage ak ci périg ci mbooleem produit yi ñuy def ci greffage saa yu ngeen demee ci moom mën na leen a conseiller li gën ci yéen elle est disponible 24 heures sur 24 ngeen mën ko woo ak kolle laay Kole Fass rek ci yow la kon nag fas yéen bàyyi Kole laay ku ko seet si seet si sa